yoo xam ne nag ki nga xam ne mooy Mamour Diallo moo ci doon waxtaan ak Adji Sarr Mamour Diallo moomee nag la ñu daal di setal ba mu set wecc daal di koy jël tabo ko mu jiite kër gii di ONAS journal bi nag nee na am na ñu bare bari ñoo ngi doon xaar naan Mamour Diallo moom bala muy dugg nag ci gouvernement wala ñu koy dénk nag moomeelu askan wi maanaam mbiri 94 milliards yi dafay leer nañ ba pare waaye tamit mbiri Adji Sarr bii nga xamante ni tudd nañu ci Mamour Diallo mbir moomee tamit dafay leer waaye ñaari mbir yii amul benn boo xam ne bu ci leer la ñu jël Mamour Diallo nag di ko yóbbu ONAS yéen a kaay gii diñu xibaar naan ñu liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ONAS ñoom nag nee nañu yi nga xam ne ñoo nekk ONAS ñoom nee nañu dañuy grève maanaam fukki fan ak ñeent ci weeru novembre bi nga xam ne moom la jëm Mamour Diallo jamono jéen ay mbiram nar ta sedd yéen a kaay gi di Rewmi nee na Macky Sall nag dafa bëgg a neexal ñëpp loolee nag boo muy tuulee maanaam ay jafe-jafe rek la koy indil ndax nomination yi ma ngi mel ni tulleeg male maanaam nomination yi ma ngi mel ni tulleeg male Macky Sall ma ngi nommé rek te nag dafa war a xam ne ñëpp mënuñoo kontaan te nag alalu askan wi maanaam koo war a sàmm nag ndax askan wi am na su ñoo xam ne dañoo sonn ba maara day tali Macky nag bu bañee kenn mera ba tax nomination yi mel ni tulleeg màlle askanu Sénégal ñoo ci nar a dee yéen kaay gi la vrai journal xëy dañu xibaar naan ñu ci biir APR ma ne la am na ñu bare bare bare ci biir APR dañoo mer ba maara day tali fippu la ñuy waajal ndax nag ñi nga xam ne ñooy waa APR ma ne la gis nga li leen méttee mooy transhumant yi nga xam ne Macky Sall jël na leen daal di leen di jox ay ndombay ministre te Aliou Sow lu ne wax na ko fi Macky Sall gis nga am na sax ay réunion secrète yoo xam ne ñi nga xam ne ñooy waa APR jamono ji ñoo ngi koy amala xool nag yan plan la ñuy jël lal ko mën a la jàmmarloo ak Macky Sall yéene kaay gi du l'observateur ñu xëy fekk fa El Hadji Malick Gakou moom nee na nag Macky Sall ko imposer par force par force mu daal di respecter li nga xam ne mooy constitution bi Malick Gakou nag di ci woo askanu Sénégal vigilance mën na la ñu ubbi seeni bët na jàkk Macky Sall bañ koo may mu nekk ci réew mi naan damay def ñetteelu candidature engagement ci laay woo yi yëpp nag ñu daal di jóg taxawaat yéene kaay gi de la sax moo Malick Gakou nee na ñetteelu candidature loolee coup sivil civil la yéene kaay gi ko Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu contrat yi Sénégal am ci lu jëm ci wàllum pétrole ak wàllum gaz Sénégal nag bénéfice yi dina ci am nag diggante cinquante ak soixante-quatre pour cent bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne nag ñooy waa Petrosen yéene kaay gi di la Tribune nee na Petrosen weddi na Thierno Alassane Sall ak ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko ci lu jëm ci wàllum pétrole gaz bi ak contrat yi ak yi nga xam ne moom moom la ci Sénégal di ama yéene kaay gi de la ko ñu xibaar naa ñu kër gii di Dakar dikk ma ci ay giiraawaale ma la bëri ci ay bus yoo xam ne dañoo paan liggéeykat yi nekk si jafe-jafe yoo xam ne maara day tale kër gii di Dakar dem dikk bu ñu leen waxee na leen ma ne la fayit na tëj na daanu na bu mu leen bett Ousmane Sylla mi nga xam ne mooy directeur bu bees bi nee bu amul ay coppite situation bi rek ci la kër gi di wëyee waaye nag moom njiitul Dakar dem dikk li lu bees le ma ngi dalal xelu ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi laal secteur primaire bi ñoom ñi nekkoon ci ay gerew jamono ji nag teg nañu gerew bi ci suufa ndax nag ñoom nee nañu gouvernement bu Sénégal ñoo leen woo ngir nag ñu daal di toog waxtaan maanaam waxtaan yoo xamante ni daal maanaam yu sérieux lay doon yéen a kaay gi di wal fajiri xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko li mu rawee nag gars yi bëri na ma élection présidentielle 2024 Ousmane Sonko ay alliéem rawee na leen lu bare bare ndax nag jamono ji ma ngi ci nemmeeku tuur te nag loole nag mën na koo jural njariñ lu bare bare bare ay sympathisant waaye tamit dafay jaayaale li nga xam ne nag mooy programme Bakary Wade ak Khalifa Ababacar Sall ñoom ba léegi nag ñoo ngi xaar seen waxtu yéen kaay gi de ko daal di dégloo waaye nag avocat yi Ousmane Sonko ñoom li ñu bëgg maanaam ñu déglu Maodo Malick Mbaye waaye tamit déglu nag ay médecin yéen kaay gi di Vox Populi xëy di ñu xibaar naan ñu ca diwaanu Tchad ay manifestation ñoo fa amoon lu toll si juróom fukk ci ñoo fa faatoo am lu toll si ñetti téeméer ñoo xam ne ñoo fa am ay gaañu-gaañoo ñii nag dañoo kontaanul te njiitu réewam Tchad ca ne mi doxalee yéen kaay gi di réew mi ko di jeex xëy ñu xibaar xibaar naan ñu conseil des bi nga xam ne moom la ñu génn président Macky Sall dafa wax ne tourisme bi dañu koy daal di jéem a suqali amal ay concertation waaye nag ñi nga xamante ni ñooy acteurs yi ñoom nag nee nañu wax joojee nga xam ne Macky Sall wax na ko maanaam du lu bees ci seeni nopp ndax Youssou Ndour ba mu fay ñëw président Macky Sall waxoon na ne dafay suqali tourisme bi France daal na ba ñu fa andee Aliou Sall waxoon na ne dafay suqali tourisme bi mën na la France daal li xëddee na Mame Mbaye mii tamit Macky Sall andi fi nee na dina xam ne